ah ah man musuwaan gis ku leen jox ñu lekk mer yaa ngi ci tali bi yalwaan ma dégg ku leen jox ñu lekk te man musuwaan gis ku leen jox ñu lekk joxaan ma joxaan ma joxaan ma joxaan ma joxaan ma ku leen jox ñu lekk dégguma dégguma dégguma musuwaan gis ku leen jox ñu lekk tali bi bari ci tali bi dama dégg coow yi xaw na bari ci daara yeeg yu demee noonu wante ñun nekk doomu réew mi nekk doomu banlieue nekk doomu géejawaay suñu gis-gis moo di bu ku nekk jéem fexee xool ci côté nan lay contribuer nan lay yokkee ci liy tax daara yi mën a yemb wala mu gën a mucc ayib jamul sax ci daara yi waaye ci xale yëpp laay wax dina am ay jéego yoo xam ne Sénégal dina ko gën dox. parce que réew bu ñu nekk dafa nekk réew boo xamante ni réewu xam-xam la certes même bu fekkee ci institution dañuy wax que ni pays laïque la waaye réew alxuraan la réewu jàng la ci branche yëpp tey nag ma àndoon ak sama équipe ñëw pour waxtaan ci ak yow ci condition yi nga xamante ni xalaat nañ ni moom la xale yi nekkee fii ci kër gi muy institut euh, islamique Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xale yi nekk biñ fi nekkee ndax tey yor benn kër bu toll nii yor xale yoo xamante ni macha allah ci seen lim xaw na jéggi dayoo amaana yorin bi léeg-léeg mun na xaw a am ay yenn complication yu ndaw ci wàllum dund amaana wala ci wàllum lekk ci wàllum naan ba ci wàllum santé wante tey association bi ma àndal muy ñaan njekk ci wàllum santé la ñu gën focaliser wu maanaam ci la ñu gën a bëgg a dugal suñu loxo ak benn partenaire bu ñuy liggéeyal nga xamante ni mooy CMU ñu ne woon nag nañ ñëw seet si la waxtaan ak yow xool nekk nu xale yi ci côté seen wér-gu-yaram yan jafe-jafe moo ci am. Ah, su ko defee yàlla nañu ko yàlla defal leen ko mbokk mi nga xam ne si ñëw na daanaka su ma déglu woon mën naa ñëw ba dem tu ma ko xam waaye turam laay gën a xam ci jëmmam kon mit ñi dégg turam moo tax

mu doon te di bu ne woon bu ñu ko def bu ñu ko def waaw waaw moo tax am na fi yeneen mag yu fi nekk ak yeneen kii yoo xam ni daara ji moom la defee waaw kii man lii dafa bett moom waaye nag macha allah bi ñëw tamit dañ ñoo jël suñu programme toog waxtaan ba trouver lu baax la war bu jàllee lu baax lay doon ñu ñaan yàlla mu jàll rek ngay ñaan yàlla doon suba rek

ñu ne kat suñ lu ñu mën ci suñu xel ak suñu doole dinañ ko jéem a def ko xale yi ñu am nag peut-être ñu ne bëri na ci conditions yi nga xamante ni peut-être metti ci xale yi xale yëpp nag yamuma ci daaray kese ndax nekk nañ ci réew boo xamante ni seen doole jotul seen ginnaaw moo ëpp peut-être ci tëddin yi ci lekkin ni ci naan yi ci fànn yu bëri am na ay jafe-jafe waaye ñu ne nag jafe-jafe ñun bi ñu gën a bëgg yi mooy ci feebaru xale yi yan complication wala yan gàllankoor ngeen di am souvent bu xale yi feebaree ndax xam nañ ni yor daara bu ay xale yu xaw a takku nekk ak nit feebar ak nit ñoo ànd peut-être conditions yi ñi ñu fajee xale yi mën na bañ a yemb comme ni ñu koy xalaatee wala comme niñ ko bëggee man nag ak association bu may liggéeyal ak partenaire bu ñuy wax CMU ma bëgg a jóg tey def benn combat jëmale ko ci xale yi combat boobu ma koy tàmbalee ci daara yi jëmale ko ci école yi ba ci xale yi nekk ci xale yi amul sens yu jàng noonu laa ko mun waxee ñu ne woon nag tey dinañ ñëw ci daara Djily mbay nekk biir Géejawaay nekk ci banlieue yi waxtaan ak ñoom ñu xool jafe-jafe yi ngeen di am ci bu xale yi feebaree man nag sama doole bariwul waaye li mu mën sama poste attan ko am naa yéene def ko ci xale yi li mu mënul nag fas yéene naa kàddu bi ma am ma jàllale ko ci ba képp kuy bonne volonté wala ku am yéene jàpp nga am alal wala nga wala nga bokk ci état wala nga bañ ci bokk mais nga am yéene jàppale xale yi dinaa fexe ubbi bunt yi ba ñu fexe même bu ñu dajalewul xale yi nekk ci baal yi yëpp ci Sénégal sax yëpp laa waaye ku ci nekk boo defee sa bos sa gox keneen def goxam peut-être Sénégal yëpp dinañ mujjee am santé xale yu mucc ayib. Mor Ndiaye laa tudd wax Mor wax mu siyaar bu yàlla rafet la li lu la ndax li ma gën a marqué sax dafa <laughs> dama ko moom dama ko yàgg gis quoi bi may nekk tout tànk nii comme tool yi koy tool si jàng di yor sama pot di yalwaan moom mu yor mu boobu muy école banque. di gàddu sànq di jàngi ñuy rombante. moom xam naa li ko toxoon doon jàng yàlla suñu borom may na ko tey ñu ngi koy dégg fu ne waaye man tamit li ma taxoon doon jàng tamit yàlla suñu borom may na ko ndax tey man mokk naa alxuraan tamit ba tey toog naa fii li mooy sama mébét kon maanaam kuy def rek lépp lu koy def rek na nekk lu baax te nekk rafet te moom koo gis li mu xalaat ak ni mu ñëwee xam na rafet dëgg la ñu ñëpp ganaay ñoom seex te laay toog doo daan dugg seen kër di yalwaan yor sama pot dèjà ñu may yërëm di ma tey la lépp boo xool daanaka dañ leen sant daal maanaam li ñu taxoon ñu nekk ci daara suñu papa yeeg suñu yaay indi ñu maanaam daara moom mun ta ñax gàllankoor noonu la noonu la demee ndax toujours dangay gis xale yi daanaka buñ sangoo tey suba duñu sangu wala ginnaaw suba duñu sangu mën nañu am trois jours ba duñu sangu sax mais lépp nag day jeex ay maanaam booy xoolee man ba ma ciy toll daanaka danga daan gis ma yërëm mais léegi moom yaakaar